côté am ak li doon wax ak li ñu ci doon dégg. Mhm. ak tey ni euh, Sénégal taxawoo. Mhm. ndax euh, man feebar bi euh, imaam feebar maa ngi ko yëg barki démb ci guddi. dama dugg vers ay une heure deux heures du matin ma dugg Facebook. Mhm. fekk benn live professeur Cheikh Omar Diagne. bi ma ko suivre quelques minutes dama tiit bay lox parce que xam naa professeur Cheikh Omar Diagne xam naa dalam xam naa ne bu waxee rek xam naa ne situation bi. critique na. Euh, ci noonu ma quitté live bi dem envoyé message euh, sama xarit Hannibal Jim di ko remercier bu baax au passage quelqu'un de très très disponible mm-hmm. surtout si la cause est Sénégal euh, Hannibal moom message ko ne ko mm. il faut impérativement déclencher benn cagnotte à l'urgence ah, kon yéen a ko yéen a sumboon cagnotte bi voilà moom tamit mu xamal ma ne effectivement mm-hmm. lu mën a nekk la parce que Euh, ni noonu la ma ko waxee. Mhm. imaam suñu imaam la. Euh, donc mais dama j'ai besoin d'autorisation moment boobu aussi ma xal xalaat ne bu naree bëri ay protocole euh, te situation bi critique bi ma delluwaat ci Cheikh Oumar. Mhm. ne ko annibal nee na mën na déclencher cagnotte bi mais il a besoin d'autorisation Cheikh Oumar ne na ko def. nous a donné l'autorisation. Mhm. parce que moom xam na situation bi dem na fa gis na. ci noonu annibal déclenché cagnotte bi. euh, le matin. Mm. même pas 24 heures c'est-à-dire balaa ñoo yegg 23 heures minuit cagnotte bi toll na ci 28 millions. Mm-hmm. ki nga xamante ni ñun bi ñu koy défendre maanaam euh, nit ñi dañ la doon daw sax naan yow da nga dof. ay terroriste moo la dese léegi mm. ngay défendre. kooku noonu la Sénégal delluwaat taxaw euh, taxawoo taxaw bii nii ci même pas 24 heures mu jël xaalis bu takku teg ko pour ñu dem faji imam Ali Ndaw kon nga xam ne revirement am na. da ndax dafa bett un peu sax sénégalais. effectivement feebar bi. non kenn parce que dañu yaakaaroon ni il était bien portant. effectivement effectivement xam nga imam. Mm. Euh, daanaka ñi ko ñi ko ñi ko xam-xam nañ ne même hôpitaux yi nii sax sawaru ci torop mm. te euh, bay dundee la xam. Mm. jàmbaaru fàkk tëdd la jàmbaaru lislaam la jàmbaar la ci liggéey. donc euh, ci espace boobu noonu sénégalais yi mën a dajale loolu ci sénégalais yi nga xamante ne boo tuddaan imaam ndaw sax ñu mel ni ñuy daaw. kon c'est-à-dire euh, ñun dañuy sant yàlla ba umpule wala boog am na lu ñu xam ci euh, seen tomb boobu noonu ci euh, imam Ali Ndao mm-hmm. donc kon demul ba dëddu ñu naan ñun xamuñu ko woon mm-hmm. en tout cas alerté nañ wane nañ ko ba mu jotee mm-hmm. sénégalais yi tamit répondre nañ positivement ba ñu xamee kan mooy imam Ndao parce que li état Euh, du Sénégal gàlloon ci kawam dafa diis. Euh, association de malfaiteurs en participation à une mm. entreprise terroriste. Mm. financement du terrorisme. blanchiment de capitaux. apologie du terrorisme. cest à yooyu noonu yëpp nga jël ko gall ko ci loolu ba pare di ko euh, arrêté ci forme d'arrestation bu musclé boo xamante ne comme ni mu wax jël ay chaîne jéng ko ci kanamu mm. njabootam. yóbbu teg ci encagoulé armé wu jusqu'aux dents. Mm-hmm. alors que ñun. xam nañ ni euh, ay la yéwén kii nekkul ci leen loolul bay dundee jàng alxuraan di ko jàngale. man personnellement euh, affaire bi daf ma heurté mais yemuma ci. dama ne naa dem seeti ko ba xam li ñuy wax lan la. ci jamono ji ñu koy tuumaal. jamono ji ñu koy tuumaal ba ma yàlla defalee tawféex euh, ñu seeti ko. Mm-hmm. waxtaan ak moom. man li li li ma li ma gën a choqué dans cette affaire Imam ndaw mooy ci ci moom laa comprendre ndekete Sénégal. Hmm. dundu fi yàlla ay kese dundu fi sunnay kese ndekete loolu euh, maanaam mën na la jural ay coono yu ni mel. Hmm. dëkk jullit. maanaam maanaam ñu ñu teg ci sa gàll ci sa. waaw ndodd lenn loo xamante ni mun nañ la. ci effectivement eh, cest dëkku jullit. Mhm. dëkku Cheikh Amadou Bamba dëkku Seydi Hadji Malick. dëkku mhm. Seydina Limamou Laye dëkk boo xamante ne la ndekete. Mhm. boo fi dund sunna kese. di fi dund du diine kese. ndekete tu t'exposes à toute forme de danger. te nag euh, Imam Ndaw euh, ni mu maîtriser l'aspect spirituel alxuraan ak sunna loolu la maîtriser jamono. maîtriser jamono xam àdduna bi ba pare mëne ay combat yoo xamante ne ragal du ko mëne contre le franc-maçonnerie euh, la mhm. franc-maçonnerie contre la Euh, contre ah. la corruption contre l'impérialisme bokk ci ànd sàmm jikko yi mhm. waaye tamit amul benn lobby ci àdduna boo naan Imam Ndao bokk na ci amul benn organisation boo xamante ne di nga ne euh, Imam Ndao impliqué wu na ci mhm. euh, finance Kadhafi financé wu ko impérialisme financé wu ko. Mm. Arabie Saoudite financé wu ko. moom alxuraan ak sunnaam googu képp la nekk di bay di dundee li mu jàngal li mu def eh, ci dënnu doomu aadama alxuraan kenn xamul nu mu toll. Mm. moo tax à l'époque j'avais dit que euh, en public ma ne euh, lii ñuy jiiñ Imam Ndao à tout point de vue danger la. li tax ma ne à tout point de vue danger la parce que à l'époque aussi maa ngi doon ci ay projet de recherche. Mm. par rapport ak le terrorisme. ak fi mu yem ci àdduna ma xam ne tey Nigéria li ko def ni mu doll nekk une poudrière nekk benn international terrorisme boo xamante ni ci Boko Haram euh, la accentué wu mm-hmm. mooy euh, ki nga xamante ne moom moo sos euh, kuréel googu ñu koy woowee Boko Haram mm-hmm. Boko Haram slogan kese la mooy l'enseignement occidental est haram mais organisation bi dëgg mi ngi tudd jamaali ahli sunna li daawal ci fal jiyaat ki ko mm-hmm. créé mi ngi tudd imam Youssouf imam Mouhamad Youssouf Euh, dafa nekkoon ci combat yii nii nga xamante ne. Imam Ndao tey ci la nekk maanaam corruption. franc-maçonnerie homosexualité di éveiller les consciences. dans l'état du Borno. Mm-hmm. c'est-à-dire da nga doon gis ba euh, Nigéria au sud euh, chrétien dañuy tuub. bàyyi seen i école ñëw fekk si euh, imam Youssouf gars yi di jógu ci ay pays ay Tchad ainsi de suite di ñëw foofu di ko déglu parce que li mu doon wax non seulement mm-hmm. euh, xam-xam ci spiritualité dëgg mais xam-xam aussi ci doxalinu état doxalinu jamono mm-hmm. alors kooku la ñu jékki-jékki jiñ ko terroriste mm-hmm. bañ ko jiiñee terroriste sans aucune forme de procès ci biir état du Borno capital bi di may guri fa lañ ko rayee torturer ko dóor ko ay bal en plein rue. muy condamnation boo xamante ni mooy dañ ko war a faat. te kenn kenn kenn euh, musul gis imam Youssouf bu fu mu reyee nit il n'a jamais prêché un discours violent mësul maanaam ñi nga xamante ne ñoo nekkoon autour de lui di ko appeler sax au jihad armé. Mm-hmm. moom moo leen doon calmer. moom la état nigérian reyee noonu maanaam ils ont tué la colombe. Mm. et quand ils xamuñ ne ki ñu rey ndakate moom moo doon téye ful bi. ils ont permis au faucon de prendre le pouvoir ouvrir leen porte bi facilement. à la personne de Aboubacar Chekau. Okay. donc ma ne Imam Ndaw. Mhm. bu dee terroriste la. li mu formé ci Sénégal ñooñu mën nañ taal Sénégal en moins de 48 heures. waaw parce que nee na am na ñu ubbi ay daara am na ñu dem. ci réew bëri na ñu bëri na li tax kañootam même pas 24 heures mu yegg niveau boobu. Mhm. xam nga ne Imam Ndaw am na lu mu liggéey ci réew mi. budul terroriste ngeen jiñ ko ko tëj ko. bu boobaa yi di ngeen créer soulèvement populaire bu metti ba ma ko ko waxee imam mu ne ma Pape Moussa doguma la loolu noonu nga doon euh, nga ci doon ragal. Mm-hmm. daanaka xewoon na ba pare. Mm. waaw teg ci euh, au-delà de de ça. Mm-hmm. Euh, son séjour carcéral. Euh, da ngay da ngay da ngay c'est-à-dire du nit koo xamante ne day ñaxtu nag ku bëri sutura la. Mm-hmm. mais à travers son frère Ablaye Ndaw dalaa ñu maanaam néeg bi mu daan nekk cellule bi mu daan nekk dañ koy chauffer ba insectes yi fa nekkoon yëppay dee da koy jàll bu Ablaye Ndaw ñëwee mu koy wan. loolu forme de torture la. mais torture waxatuma laag sur le plan moral ay ay ay ay ay nit yu xamul fu ñu jugee xamul ay enregistrement la xamul lan la mais di ko saaga suba ngoon guddee bëccëg. ci ci jamono ji ñu bi nga xamante ne mi ngi dund euh, son incarcération actuelle euh, foofu noonu ci euh, mm. QHS quartier haute sécurité bi nekk camp pénal Imam Ndaw génn ci loolu. Mm. ak le réquisitoire introductif bi nga xamante ne le juge d'instruction def na ko le feu Samba Sall à mm. l'endroit du de de de l'imam Alioune Ndao c'est-à-dire da nga koy dégg seeram day daw koo xamante ne zéro violence passivité mais aussi lépp lu muy def sur le plan di tension tension scientifique la tension des idées la mais kooku noonu nga gis euh, euh, le juge d'instruction à travers son son ordonnance de renvoi di ko jiiñ lu ne mu ne tekk rek ñëw taxaw ci procès ba taxawaay boo xamante ne je pense que ni bokk na ci prémices yi nga xamante ne foofu la Sénégal découvrir kan mooy Imam Ndaw non seulement wan wane boppam mm. ci xam-xam wane kan la wane li muy def ba pare euh, li nga xamante ne dañ koy jiiñ nit ñi muy daw muy jihadisme mm. bañ ne ko ndax jihadisme nga dafa ne leen pur et dur méngoo méngoo ak li Serigne Touba waxoon parce que moom moo mm. njëkk ne bi ñu koy jiiñ jihadisme mu ne inni u jaahidu moom ah. Serigne Touba moi je suis un djihadiste. Mm. djihad du infraction. au contraire c'est une exigence religieuse. mais jamono ji ni ñu koy interpréter bokkut ak boobu ñoom mais kan moo mën a interpréter alxuraan ku weesu jullit bi. Mm. maanaam tey jii nii man ñu may jiñ jiyaat dis may daw. lu waral ñu yegg ba foofu. mais parce que non seulement il y a une conspiration contre la religion mu wax naa la ko léegi ma ne la Sénégal ndekete dund fi sunna ak euh, diine kes ndekete loolu euh, mën na la jural ay loraange yu bari. fragilisé la effectivement comme ni ko euh, euh, Imam Daouda parce que tey jii nii nga ne man jihadiste la man jihadiste la je le reconnais et man je le maintiens je suis mm-hmm. exigence religieuse la yàlla moom moo ko santaane. te Imam Ndao il nous dit de manière claire. Mm-hmm. sama jihad c'est intellectuel. mais aucune forme de violence. Mm-hmm. mais tey jii nii bu ñu yeggee ba euh, situation ñu taxaw naan dañuy jiñ nit naa nangam parce que ki nga xamante ne moom du jullit xamul luy jihad. mu jàngul suuraat bi moom moo lay pervertiral notion bi. di ko ah. dramatiser man nag du ma tiit. ku ko dégg moom boo demee ba jullit bi di ah. dégg une uh-huh. exigence religieuse di tiit. c'est-à-dire kooku diineem umpul na ko te loolu noonu nag la imam Ndao nekkoon di éveiller ci euh, xelu doomu aadama yi ba pare euh, boo koy dégg ci xutbaam ak yooyu. Uh-huh. da ngay xam ne dafa maîtriser son époque. loolu moom moo waral nag professeur Cheikh Oumar Diagne est à raison. mu ni du ko jébbal ñi nga xamante ne moom la nekkoon en croisade contre ñoom. mooy muy muy état bu Sénégal muy muy système bi. mais laataa foofu sax lan moo waraloon euh, choix wu directement. moom euh, moom mi nga xamante ni moom moo di Imaam Ndao parce que borom xam-xam yi bëri nañ. luy ah. waral ñu jógee Ndakaaru dem ba kaw Kaolack fekk ko euh, ca dëkkam boobu noonu nga xamante ni moom moo ko samp euh, macha allah. fekk ko fa pourquoi le choix. soxna si dafa mel ni rek parce que loolu dañ ko doon dégg lu bari. Mhm. ci moment yi nga xamante ne ñu ngi woon di xeex pour la libération et pour la reconnaissance de la dignité de Imaam Ndao ñu naan ñu may attends lii mënul nekk parce que mënuñ ci jéggi imaam yëpp dem ba ci moom kon am na lu mu laalee dafay mel ni rek yonent yàlla yusufa moom bañ koy jàpp di ko jiñ euh, sàkku dafa mel ni ay góor nekku ñoo fa pourtant ay góor nga fa woon Sëriñ tubaab bi ñu ko fiy jëli pourtant ay sëriñ a ngi fi woon donc kon lan moo waral nga ne jéggi nañ ñëpp jëli nañ ko rek kon moom loolu loolu pour man lu ñuy dàq tegee ne leen noonu lañ ko doon interprété euh, justement am na xëy na Euh, ay affaires yoo xamante ne maa ngi ko doon wax à l'époque jour bi procès bi tijjee euh, édition spéciale sur Walf fu ne amul benn ramification booy jiiñ Imam ndaw teg ci terrorisme léegi euh, ñoom Matar Joxaane ñoom Omar Diallo cest à ñi nga xamante ne ñoom dem nañ rejoindre la forêt dense de Sambisa nekk quartier général lu Boko Haram ils sont passés par chez Imam Ndao mm. ñenn ñi gis nañ ko wala ñenn ñi ba ñu fa jugee aussi dellu waat nañu jaaraat ci imam Ndaw mais pour quelle raison. et Matar Joxaane euh, à leeral na ko saa à bi mu demee euh, moom Matar Joxaane il n'était pas euh, ci biir fi nga xamante ne foofu la zone occupée par Boko Haram. yeneen sénégalais ñoo fa nekkoon ñoom Latir Ndiaye ñoom kii Mouhamed Mouhamed Ndiaye. Mm-hmm. ñooñ noonu ñoo nekkoon foofu léegi bi ñu nekkee foofu noonu. ba dem ne li ñu doon wut maanaam dëkk buy appliquer charia gisuñu ko ñoom léegi dañoo bëgg a ñibbi Boko Haram li la fa dugal génneew la fa. Ah. ils avaient des problèmes pour rentrer te ñoom ànduñu ci ñoom exaction yi ñuy def. ci noonu euh, Maktar Joxaane à l'époque nekkoon euh, kuy jàngale alxuraan. Mhm. pas à Sambisa. Mhm. pas dans Goza mais ci benn dëkk frontalière bu ñu naan Abadam ñu ne ko yow comme que sa xam-xam euh, macha allah rafetlu nañ ko ci wàllu diine. dañoo bëgg nga ñëw waxtaan ak Aboubacar Shekau mooy chefu Boko Haram. pour mu accepter de laisser sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi fa. loolu ku ku ñuy wax Aboubacar Gueye moom moo ñëw wax ko Matar Joxaane alors Matar effectivement xam ne sénégalais yooyu ñu ngi en danger donc il faut impérativement def dara. pour essayer de les libérer. Mhm. Matar Joxaane ci noonu la jógee euh, Abadam. dem dans la forêt de Sambisa fi nga xamante ne c'était à l'époque occupé par Boko Haram. Euh, bi mu laajee lan moo waral ñu bañ leen ñu génn c'est-à-dire dañ leen takfiir maanaam excommunier par rapport ak dañ leen gis ak ay pièces d'identité ñu ne leen pièce d'identité dafa xaram parce que dafay mel ni da ngay reconnaître sa existence d'un état impie ah. donc euh, débarrassé wu de ça ci école aussi jàng école comme l'école française école mm-hmm. anglaise ñu ne leen école dafa xaram <laughs> loolu parce que boo déggee Boko xaram mm-hmm. bokkoo bokk comme book quoi livre. book oui. is xaraam. Mhm. dafa xaraam. Mhm. looloo waral turu bokkoo xaraam jàng daal ñu bannir ko. dañ ko bannir parce que mhm. dañ jàpp ne école moom mooy pervertir nit ñi. école moom mooy ñëw yooyu émancipation. de la femme yi doon def ci école yi jàpp xale yu jigéen ñi xale yu jigéen ñi tu te rappelles de ça. donc Matar ne ah bu dee loolu la amul problème yóbbu leen ma ci Aboubacar Chekao yóbbu ko ci Aboubacar Chekao et il a euh, convaincu le gars que ñii dañoo war a ñibbi. alors boobu ils étaient un groupe de euh, six personnes ñu euh, éparpillé wu euh, pour war a mën a génn dans la forêt de Sambisa pour mën a ñëw Sénégal Matar Joxaane wax leen lu leer ne leen fii ngeen jóge danger la fii ngeen jóge du diine te yéen dafa mel ni sax li leen andi ba fii réer ci diine la bu ñu génn demee dëkk ba nañu dem ci imam Ndaw mu gindi leen loolu moom moo waral seen jaar ci imam Ndaw et jotuñ sax yegg parce que dañoo ñëw ba. Euh, groupe bi Matar Joxaane nekkoon y avait Moussa Aw y avait Matar Joxaane y Ibrahima Diallo ba ñu euh, yegsee ba Aboubacar Sekaw jox na leen xaalis pour passe ba ñu ba Niger ñu jàppaat leen à Zender parce que euh, Naira lañ leen joxoon xaalisu Nigéria mm-hmm, mm-hmm. ñu convertir ko war ko convertir en CFA ñu jox leen faux billet donc faux billet yooyu noonu nag moom lañ leen jàppee au Niger alors euh, foofu ci prison wu Zénith boobu fekk na Matar Diokhané ñibbi si waat na ba ñoom ñu woowaat ko nekk ñu dañ ñoo jàppaat. pour pour pour, pour ngir mu ñëw. voilà Matar Diokhané jugewaat Sénégal. demaat fekkaat leen foofu pour essayer de les ñu jàppaale ko moom Matar joxaane foofu noonu ils ont vécu des tortures immenses ba ki nga xamante ne mooy Moussa Aw moom foofu la ñàkkee bakkanam ci prison yi état du Sénégal demandé ñu andi leen. comme que ñële jotoon nañ ñëw ñoom Ibrahima jàllook yooyu ak Matar Joxaane mm-hmm. Matar Joxaane jaarale leen ci Imam Ndaw teg ci ñoom it à la recherche mm-hmm. d'un guide spirituel par rapport ak xam-xam bi Imam Ndaw di il s'y trouvait une référence mm-hmm. moo tax après euh, bi Matar Joxaane demaate bañ arrêté ko euh, jabaru Matar Joxaane euh, am na xaalis bu mu ko joxoon moom it jaar na ci Imam Ndaw pour laaj ko naka la war a doxalee lii Imam Euh, wax ko lu ci diine wax comme ku am problème mu diine rek man lépp lu may xalaat ci diine imam ndaw laay vocal mu wax ma naka la ma doxalee noonu ñoom noonu lañ doon euh, def par rapport ak seen diine. Hmm. donc kon que ñi nga xamante ne arrêté ne woon nañ leen ci kii boobu am na ci ñu ko xamoon Saliou Ndiaye ci euh, daara imam ndaw la la la la nekk. la nekkoon. Ibra Ibrahima Ibrahima Aw moom mu ci daara imam cest à a cinq à six personnes yoo xamante ne imam xam na leen directement. ñeneen ñi tamit ñoom xam nañu imam. Mhm. parce que tey euh, xam imaam ndaw pratiquement Sénégal yëpp xam nañu imam ndaw. mais moom xam na ñëpp moom ñi mu ci xamoon. maximum c'était cinq personnes. donc loolu moom moo waraloon nag euh, ñoom ñu jàpp ne kii moom mooy le guide des terroristes. Wow. Finalement, il n'y a pas eu terroriste, malgré le réquisitoire mmh. très incendiaire, mm. incendiaire du, du, du, du, parquet, demandé à ce que nous condamnions 20 ans, mmh. malgré l'ordonnance de renvoi très problématique. Mm-hmm. justice sénégalaise seetal imam ndaw ba mu set wecc. balaa mu ko setal moom justice ñun setal nañ ko ndax xam nañ ne dafa set. te te def na fa ñaari at ak. ñett ñett at. ci loo xamante ne état Sénégal waroon na indemniser imam ndaw par rapport ak liggéey bi mu muy def ak Kaolack ci éveil conscience ci yar nit ñi est-ce que xam nga ne daara imam ndaw ngay dem fekk fa constitution Sénégal buñ ñu en arabe di ko jàngal xale yi. ci biir daara ja ci biir daara ja muy wane di confirmer sànq li ngay wax ni mi ngi dafay dund jamono. exactement imam Ndao ci biir daaraam da ngay jàng constitution. du Sénégal. Euh, donte am na ci yu bëri yu muy xeex comme laïcité ainsi de suite mais daf koy jàngale di wane le caractère citoyen imam Ndao euh, am projet de développement pour euh, terroiram. ñu ne noonu loolu projet terroriste la quoi surtout surtout loolu le plan de développement local bi nga xamante ni jublu woon na ci sax coppi anam bi ñuy jëflantee ak banques yi. très bien évoqué na ko également ne est-ce que nekkul lu ko exposé. mais mais mais mais xam que menace la doon nduru selon moom. waaw mais mais mais mais léegi lu dëppoog diine menace la léegi ci réew mi. cest moom li muy wax lu dëppoog diine la. nangu nga ko ak nangu woo ko système bancaire bi lu ci bëri dafa xaram. mais léegi li nga xamante ne diine moo ko xaramal. wala ku ko wax léegi tu deviens euh, euh, un délinquant mm. kon c'est-à-dire nañu jàpp ne te tubaab yi yegg nañ foofu ah France dem nañ ba ne alxuraan bi moom mooy apologie du terrorisme nañ ko abrogé mm-hmm. ah y a des beaucoup en matière entre guillemets du terrorisme en France yu daan la carrément ne problème bi c'est le Coran parce que apologie bi ñuy wax am na nooy liiree alxuraan tu fais de l'apologie donc loolu tamit bokkoon na élévation bi nu amoon pour mën a mëne boobu combat tamit parce que ñu nekk dans un pays de Almami Souleymane Baal dëkk boo xamante ne des générations et des générations ont sacrifié leur vie leur liberté lu nekk ñu daj ko et on est au mois de safar Cheikh Amadou Bamba 35 ans de privation de liberté la dundu dund lu metti tukki boo xamante ne kenn mësu koo def ñaari fan dund mu def ko 7 indiwul andiwul lëgët ba pare taxaw xeex li muy xeex. Mhm. ba pare ne wax wan wan nañu ne ñun of dëkk la boo xamante ne waruñu permettre waruñu accepter mhm. waruñu nangul kenn des dispositions coraniques war a nekk source d'infraction dans ce pays la mhm. et c'était ça l'essence mhm. du combat de Imam Ndao